bu joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux du mës a suux ma ni dégloo dégloo dégloo di suñu kër FM seeni kër laa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 781 82 04 wala sax gañi lu gëna easy do fay dara le Skype Radio sunu kër l'info autrement du fenn fudul fi si sunu kër ci kër gi kër gi la maison moi bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te mon fi ëpp ma fi xam-xam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 na ñu xamee woon pour seen bopp. moom ma xëy ci loolu. ah président ne waaye nag yàllaa ko xëy ci loolu. ñu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l' intérieur. en tout cas président la woon ko loolu day wax dëgg yàlla xam a diis. parce que technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il nga dem foofu parce que loolu moo gën a ko bu dee moo le gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte parole du gouvernement Donc, on a defal lii yëpp ndax am nga payam assalaamu aleykum taala wabarakatuh. auditeurs yi yéen a déglu seen émission l'info autrement jii nag di mercredi le 19 janvier 2022 ñu ànd ak mbégte bu rëy rëy rëy ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di anda ak mbekté bu reuy di di ñëwaat jakarlo ak yeen di Len faram fàcceel fas faram fàcceel les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di nuyu sénégalais yi fep fu ñu nekk ci aduna bi di Len jox ku ci nekk loxo ginaaw buñ len balo ak balen di ñaan sunu borom yalla ñu boole jéggel musal ñu ci seytaane musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw saxal ñu ci lislaam saxal ñu ci diine jubal sunu réew ba mu nekk numéro uno ba sénégalais yi dootuñu jéggaaneeti di dem di sibooru bitim réew ba mu dem doon eldorado bu bees boo xamante ne nit ñu ñuul ñi fa la ñuy làqoo ñu dem bay jàngale bon gouvernance yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal te defal ko waa afrig yëpp fépp fu der bu ñuul di nekk yàlla na la sunu borom gën a sàmm ndax bokk nañu ñi gën a sonn ci àdduna bi fépp foo dem tukki fa boo dee nit ku ñuul ba ci sunu réew yi sax da ngay am challenge boo xamante ne yow qualification bi muy laaj faaw nga ëpp ko ñeenti yoon pour nga bëgg a bo mën a mën a bokk di liggéey ak benn tubaab boo xam ne moom benn degré rek la am yow faaw nga am 4 degré ngay doog a bokk ak ñoom liggéey loolu nag suñu ko bëggee dund il faut que ñu ñaan yàlla mu dimbali ñu d'abord mais aussi il faut que ñu góor góorgóorlu am benn liggéey boo xamante ne dañ ko war a def liggéey bi ñu war a def nag mooy ñu fexe ba waxante dëgg mooy ñu fexe ba jàppalante mooy mu ñu fexe ba xam ne comme que ñun ñooy target bi nga xam ne ñooy constituer couche sociale la plus inférieure ñuy sóoraalante suñu bopp di jàppalewant wante te loolu mënuñu ko commencé fenn lu dul fu suñu réew suñu réew yi rek lañ ko mën a commencé en Afrique bàyyi doon le pays de la teranga wala boo dee doon le pays dara la teranga tàmbali kooku ci der yu ñuul yu nuroog yow doon le pays de la teranga pour les africains arrêté doon le pays de la teranga pour les occidentaux loolu moo doon li nga xamante ne bëggoon naa ko nuyoo actualité bi nag dafa jaxasoo lool maa ngi dégg ndeysaan démb sunu lion yi doon football góor-góorlu ba yàlla may leen ñu nekk euh, premier ci seeni poule mais teewul boo xoolee presse bi ils ne sont pas ñi nga xamante ne ñoo ci nekk di ci les chroniqueurs ils ne sont pas satisfaits du résultat de nos lions parce que daanaka ñi ci ëpp ci ñoom ñàkk xam sport la parce que sport du affaire u caaxaan te équipe bu yambar booy xeeb du jongante ak seeni morom ba fexe ba kenn gañewu ko mu gagné benn waaye kenn gañewu ko nga bëgg xeeb ñeneen ñi ba yaakaar ne yow da nga war a ñëw rek di dugal rek di dugal rek di dugal rek di gagné ñoom ñëpp di bind lu bon ñoom ñëpp di xeeb ku ci ya yaay set, kan ngay target ci équipe bi ak kan lañu duggal dugal te waruñu ko dugal ku nek di xeeb sa morom te mbirum sport do ay affaireu tiaxan do ay affaireu tiaxan nekul na ñun rek ño am ay terrain ñun rek ñooy jouer petit petit camp wala wala footballu plage gaay dañuy am seeni dong dugal leen ci ay école de football motax bo xolé championnat d'Afrique bi ay rew yo musul gis ño ci juk parce que ñëpp dem jàngi football xaandu bal la rek man chaque jour ñu yónnee ma ay vidéo yoo xamante ne ay nit ñu laccax ñoo yore bal di ci def lu ne yoo xamante ne dañu yaakaaroon ne Maradona rek ko mën wala Pelé léegi ay jigéen sax dañu koy def ay jigéen boo leen joxee bal ñu jongle ci donc mbir mi nekkatul ay affaire u xeebaati Sénégal yëpp dañoo waroon a kontaan mais kom que sénégalais n'est jamais satisfait loo leen jox rek ñu ne na gën a bëri bu mu toll boo leen tàllalee benn baaraam sa loxo bi la ñuy jël sooy jaay baax di defalaate ñu ne dafa kon soo nobee sa jabar ñu ne da koo ragal xam nga yow dicton yooyu yëpp yéen dégg ngeen ko den di dégg ñii di wa ay waxtaan ay sujets sociaux di ci waxtaane trop bon trop con koo may muy wut lu ko ëpp ku la nax benn yoon dellu siwaat pour jëm laa nax loo am doo ko doylu yaa ngi xool la ma sàmba am ak ma demba bëgg a judd suba raw ñëpp bëgg am alal jurul jeex te doo liggéey bëgg am notoriété te doo joxe de la qualité ñun ñoo ciy champion moo tax presse bi yëpp jug amul sax benn gisuma fax benn boo xamante ne am na kenn ku wax ne mais mais équipe bu yambar dina jël premier ci poule est-ce que loolu am na équipe bu yambar dina nañu jël seen équipe nawetaan yi ngeen yóbbu leen ndax dinañ jël premier mais ay équipe yu mag yu mel ni gana ay Algérie nekk en difficulté football bi moo soppeeku mais au ñu ne leen bravo ñi nga xamante ne ñooy ancien liens yi nekkoon 2002 complot ak ay journaliste waaw complot maa maa indi bi waaw complot ak ay journaliste di xiiru entraîneur boo xam ne dañ ko waroon a encourager xelam dal su xelam dalul du mën a sax teg un tactique buy tax muy gañe li ñu def yëpp mooy di ko menacer quoi gars yi di liir journaux yi di gis ne waar réew ma dañoo mer contre ñoom. pourquoi parce que dugaloo mais tay camp yi xanaa amul amul gardien xanaa camp yi la amul défense mais bu yomboo woon noonu kon boo gagné da ngay gagné sans gloire da ngay gagné sans gloire. mais dañoo yore presse boo xamante ne moo tax ñun suñu réew yi faaw ñu xoolaat ko quoi faaw ñu xoolaat ko te li ci ëpp luy yàqu presse bi ñoo koy yàq luy ëpp lu yàqu ñoo koy yàq dem na ba dugg ci biir politique bi laa lay wax ni dafa dem ba dugg ci biir politique bi te réew yi ñu nekk nii press yi ñoo koy defar presse yi ñooy defar réew yi ñu nekk nii am na yenn sujet yoo xam ne boo ko abordé woon jox ko presse bi duñ ko sax publier nga jëmale ko ci critiquer Amérique wala France duñ ko publier yaay dem kay sa blog publier ko presse quatrième pouvoir lañ koy woowe danga nga war a aar sa réew da nga war a seet doxul nga bind ci avec respect bind ci dénoncer ko ñu xam ne ñii di jiite xam ne lii de du yoon te diw wax na ci waaw mais presse boo xamante ne fu mu toll nii boo ko seetloo ay da dañoo def gang gang lañu def gang geng bo xamantene ne pour nga dugg ci bir di problème la su la kenn oublé nak rek ñeneen ñi wolu la parce que xamna xam ñom xamnañu li ñuy defante su la kenn oublé rek ñu wolu la waaw bu ko défé da ngay gis la ngay gis la même presse ñoy reprendre ante sen article la même presse parce que groupe la ku am sa ku am sa deal rek ñeneen ñi jappalé la mu am visibilité suñu amé ku nuy xex ne eh diw de daf may xex loo ci bind ñu reprendre ko pour réew mi yëkk ne diw ak diw dañoo jote lu bon lu nekk ñu yàq la ko te presse warul doxee noonu presque ni mu war a doxee mooy je mooy fexe ba pousser nit ñi ñu liggéey baara ñi nga xam ne ay saay-saay lañu ñu teel leen a dénoncer sax dañ koy def dañ ko war a def mais élection présidentielle élection locale am boo liiree presse bi à la une li ñuy def yépp ci ala uni motax gaay di créer journaux parce que du ci jaay bi lañuy wuté lañuy amé ñuy xam nga presse 100 francs taxul nga nga nga print way ay milliers de copies diko jaay tous les jours ñaata lay jar ñu la 100 francs ay presse 100 francs fa la lay joxee xaalis ah, presse presse boo xamante ne bo ci boko jaayé 100 francs nga jaay ci 1000 copies ci ngay doga am 100000 cent mille lan la mën a defar mën naa defar mil copie nga xam ne am na leneen lu lu laru ci biir am na leneen lu laru ci biir léegi nag chantage bi ci nekk dama ciy waxtaan ak sax benn benn benn politicien mu mu mu ci kaas ma ne ko boo jekki-jekkee dégg Sénégal ku jug rek ne journaliste la daa am lu ko waral daa am lekk bu ci nekk moo tax bu nit ñi di ñëw di envahir suñu réew yi duñu ci bind ci mbirum sécurité nationale duñu ci bind ñiy bind ñëpp ñi gën a virulent ñi ñi yore plume yi gën a pointu c'est pour défendre le gouvernement à coup de millions et de milliards loolu mooy doon seen liggéey waaw ku jóg rek ñi nga xamante ne ñooy ñoo nekkoon DG wala doonoon ay ministre bëgg doon tey maire ñooñu la ñuy jël def leen à la une man dafa am benn boo xam ne saa réew mi la saa yu ma demee dugg seen site di liir li xew Zahra Iyane Iyane Thiam mooy nekk ca kaw ma ne xanaa ñi dañoo signé contrat ak ñoom ñu baal ma maa ngi tudd ay tur créé wu ma benn ennemi damay wax rek lu ma seetlu noonu la amee journaux yoo xam ne boo ci demee rek ay quelques personnes nañu jël def ay ténor da ngay dem ba defe ne Dakar ah entre Barthélemy Diaz la ak ak ak ak ak ak Diouf parce que presse bi contre gouvernement bi dañuy jàppale côté bële da maanaam dañuy mel ne sax dañuy affilié wu ci parti politique yi maa ngi dégg démb démb wala bërki démb ñu koy waxtaane ci sunu sunu émission bi sunu kër sunu kër matin moo maa ngi leen di recommander ngeen déglu ko maa ngi leen di recommander ngeen déglu ko le matin bu ngeen yeewoo le matin à huit heures jàpp leen rajo sunu kër sunu kër FM jàpp ko ngeen déglu waxtaan yi ci yi ci xale journaliste yi di def xale yu am xam-xam loo xam ne doo ko dégg ci tele yi laa lay wax nii nag parce que ñi ko ñi ñemee wax yooyu bëri wuñu ànd ci nag à l'aise bëri wuñu da leen ko déglu maa ngi koy defal publicité parce que dafa da dina am lu ngeen ci jàng waaw y a de la bonne graine di ngeen am lu ngeen ci jàng affaire du ay affaire yu caaxaan bu ñu jógee boo demee foo dem rek da ngay l'ancien ne l' ministre wala wala le DG mom moy mom moy le seul candidat pourquoi parce que dans les journaux mom moy nek à la une tous les jours su ko nekkul every other day mom lañuy tek ci karamu ki bi waaw mom lañuy tek ci à la à la une bi quoi eh def na eh e def na laa e dugg na fi e eh, génn na rek ngay gis ñu wane ko muy toilette ka maquillage ak a maccutuñ ñu imposer ko nit ñi nak ba à la fin da ngay dem ba nga xam ne yow moo tax gis nga population bi il faut ñu yeewu mais nag man a ñun dañuy sonn rek du ñu yeewu dañuy sonn du ñu yeewu xam nga dëkk boo xam ne dañuy wax ne la y presque cinquante cinq pour cent d'analphabètes mais population boobu am na yoo xam ne mënuloo ko mënuloo ko xaar ci ñoom te mbirum vote du du mbirum naakal blende c'est pour les instruits sinon on aura on aura que des des des des mécaniques yow kañ ngay votel ñu ne la votelal Macky Sall ngay votel ñu wan la ñu wan la carte carton bi ne la carton bi nga bii boo ko gisee rek bii ngay dugal dégg nga vote mécanique jéemuloo xam lu xew ci réew mi jéemuloo lijjanti ku xew ci réew mi ki ngay gis chaque jour ci télé bi muy toilettu di sol ay verre yu nafe rafet ak ay costume rek ah di la sourire rek nga ne baax na ay ay moo réew mi réew mi du ngeen yàgg jug ci ay surprise ku jug di wax ñu ne dafa bëgg siiw ku jug di wax lu leen di jariñ ñu defe na yow dafa am loo bëgg ci ñoom ñu ne dañ lay dañu lay xeex quoi wala dañ lay noyé waaw ay votant mécanique rek mooy sëriñ bi wax na leen ne leen diw ngeen di votel comme nañ na mu xewee bërkaati démb ba ñu duma waajooju waajooju sant siise ba ñu duma ko ci benn sëriñ bu wax rek ne fal naa diw ak diw mu ñëw ne nañu seetaan gars yi jàpp enlèvement te du mujj fenn nag ah du mujj fenn gis nga dans famille familles yi dafa am ay saay-saay yu ci nekk di jaay doole te duñu dem box yi ay saay-saay moo tax gis nga nit da nga war a am challenge mais juddu juddu rek bokk ci benn famille rek nga defe ne yow xoolal yow àdduna ak li ci biir yaa ko moom te sa doole jooju mënoon nga koy utiliser comme que sax yow am nga tur mën nga utiliser sa doole jooju bokk ci xeex bi ñuy xeex France la domination française mënoon nga cee bokk xeex xeex bu ñuy xeex l'envahissement des des des arabisants yi nga xam ne dañuy fekk suñu sëriñ si di leen xeeb di leen saaga yow am nga tur ba pare loolu moo waroon doon sa mission man bu ma siiwee bu ma siiwoon yooyu mooy doon sama mission ah comme que am naa ne su ma waxee dinaa am un million de personnes yu ma déglu kon ma taal réew mi ci lu baax ma lakk réew mi nag woote ay manifestation ndax su ma amoon assez d'oreilles yu may déglu rek ma wax lu rëy rëy luy soppi nag parce que da ngay xam ne yaa ngi ci sécurité mais duñu ko jariñ lu dul laamisoo ak politiciens yi ñu leen di jox ay koppar dégg nga bu ñu leen joxee ay koppar ñu ñëw fekk ay seeni ay taalibe yoo xam ne des taalibe mourants qui ne réussis même pas à joindre les deux bu dégg ñuy lekk lu ñu yore ba noppi boole ñoom li ñuy lekk ci politiciens yi ku nekk ci bopp réew mi rek ñu ne la yaako ko yore yàllaa la fi teg yàllaa la fi teg yàllaa la fi teg bàyyi leen ko yàllaa la fi teg géwél yi nga xamante ne ay arnaqueur lañu nekk ci rajo yeeg ci télé yi dégg nga di tagg waa nguur gi rek ku nekk ci opposition opposition bi ñu xam ne amuloo xaalis duñ la faale da ngeen defe ne ñi fi nekkoon di tagg Abdou Diouf tey Abdou Diouf jóge fi ñu doon géwalu Ablaye Wade ab Ablaye Wade juge fi ñu doon eh, géewalu Macky ngeen defe ne ñooñu am na amal nañu njariñ réew mi ñu def leen ay journaliste par force jël ay comédien def leen ay journaliste par force réew moomu boo ca nekkee bu ñu la waxee ne yokk nañu ti ne cinquante cinq pour cent de la population c'est des analphabètes saa waay war nga xam ne réew moomu bu ñu ko doon envahir tey dañ koy naan comme ndox culture bu nekk mën na ko envahir jël ko parce que les grandes nation dafa am nu ñuy xeexee sa culture la ñuy njëkk a jaar nga dem ba xeeb say tradition ak ni ngay doxe réew ma fu mu toll nii ñi xeeb suñu tradition mooy ñi jàng ñi mooy ñoo ñi nekk ci télé yi mooy ñi nekk ci rajo yi di wax ngeen leen di dégg ñooy seen ministre yi ñooy seen président yi lenn moo ñu may chance mos naa ko waxtaane Moins 55% de la population analphabète là, am motax ba sunu sëriñ ci am baat tudu ba tay ñuy tuddu suñu sëriñ ci ah, di tuddu Touba population analphabète be tax de parce que ñoñu bien que dinañ leen dinañ leen politique ñu def vote mécanique ci ki ñu gis ci tele bi waaye ba tey ñooñu ñoo gëm sëriñ soosu nga xam ne ñoo ñooñoo ñooñooy gardien du temple waaw ñooñu la parce que bu ñu bu message bi duggoon ci ñoom carrément kon réew mi réew mi ñu soppi turu Mamadou yeeg Jean Pierre lu leer laa la wax waaw soppi seen tur yi xoolal intellectuel yi ku ci juddul ñan la ñuy tuddee seen doom yi rek waaw ñu ñambaasi benn turu tubaab pour nice niceal ko au cas où bu ñuy tukki yooyu xew ci réew mi léegi ay Jean Amadou ay Mathieu Mamadou yooyu rek ngay gis Abdoulaye François wala François yow rek faaw ñu jaxase ko ci boo demee fee bu la neexee nga buusel ko nu la neexee sa dépend foo dëkk dara lañu ñu amatul ci ci ngëm-ngëm ci réew mi corruption bu dul jeex moo tax gis nga mbirum patriotisme c'est une culture c'est une culture moom la mbirum patriotisme militantisme culture la dañ ko war a jàngale waaw culture nag boo ko déggee mën nga ko tojee nu la neex waaye bi ci gën a yomb mooy mooy bay la rek bay waaw comme booy cultiver rek da ngay bay li nga ji moom mooy sax nañu fexe ji lu baax dugal ko ci xale yi mais di leen jàngal naka la ñuy defee corruption ubbi sa site internet wala sa benn journaux gars yi di la fay ci suuf nga def leen à la une tous les jours di leen jàppale ah pour ay minable di di doon ay di doon bu ëllëgee ay maire di jéere ay gox bu ñu paree def seeni gox base politique pour mën a mu doon tremplin bi leen di def ministre wala dugal leen ci gouvernement bi xam loolu yëfu caaxaan la moo tax qualité politicien yi ñu daan am amatuñu ko da nga daan daawuloo sax ñemee rêvé doon politicien waaw daawoo ko daawoo parce que da ngay xam ne liggéey bi mu laaj ba nga fay yegg ñemewuloo ci lire ay këyit ñemewuloo ci challenge un professeur pour satisfaire ko ñemewuloo ko mais léegi ay reuy ay reuy laming rek quoi bo demee medina ñu naan la ay diw moy maire medina ah nga dem ay Mermoz ñaan la diw moy moy nga dem Dakar gis ay ño xamantene ne amuñu sax baccalauréat ñaan la ñi ñoy maire de Dakar quoi ñem ñukoy tek ci ay affaire politique quoi mbolo mi top la rek ngay joxe. te xamuñu xaalis bi foo ko jëlee loolu dafa doy waar dafa doy waar gaan réew mi moo réew mi moo yàqu te fi muy yàqoo xamoon nañu ko ndax ba muy xomaat gisoon nañu ko bi muy xomaat ñu ngi koy xool waaye kenn waxu ci léegi nag muy yàqu ba nga xamante ne xeetu xoolal da ngay xool domaine yëpp rek même domaine culture bi dama xoolal domaine yëpp rek nga xool leen qualité bi dafa jóge ci ni mu meloon am challenge yàqu léegi ba nga xamante ne booy déglu suñu musique bi ay façon gars yi lu leen lu leen neex ay thème doo ci jàng dara ay affaire u caaxaan la ñuy wax nga dem ci politiciens yi nuruwuñu ko wuñu jong wuñu dara xamuñu ko ci xam-xam xeetu sëriñ si ñu yore tamit boo ko xoolee xool leen ay seriñu sëriñu jaay taar la ñu yore léegi nii quoi ay toilette ba nice ba mel ni mel ni waruloo dox ci suuf si dañ la war a yanu quoi bu ñuy wax du ñu nangoo ubbi seen gémmiñ di dof doflu di macc tun di rosa di musóoru di maquillage ñii di wat seen sikkim yi bay nduroog ay tubaab yooyu rek la ñu xam échantillon boo jël dafa xomaat léegi nag loolu buñ ci tolloo bu ñu am ay problème bu ñu am ay problème entre ñu ñu xam ne ñun ñoo ñun ñoo tegatul baar bi mu kawe ñoo ko tegatu léegi nag élection locale yi moom mbirum xëccoo poste la pour gérer ay suuf xam nga démb lañu def la rentrée solennelle des cours et tribunaux Macky Sall dem na fa waxtaan na laaj nañ ko ay questions répondre na expliquer na dem na sax ba expliquer ne depuis 2016 am na yoo xamante ne bu ko bàyyi woon tey benn suuf kenn du ko moom maanaam dootuñu ko amati ci réew mi waaw nee na nee na wax na loolu waaye waaye suuf si ni ñu ko bazardé depuis 2012 loolu waroon na ko expliquer nit ñi ñi nga xamante ne démb woon dara 2012 ñëw tey ñu doon ay milliardaire te bokk na ci gorom bi yooyu tamit dañ ko ci war a boole te gars yi doonuñu amul amuñu seen alal lu dul suuf si suuf see gën a gaaw moom la ñuy jaayee fu mu toll ni terrain boo ko bëggoon Dakar soo génnewul des centaines de millions doo ko am aéroport baa ngi noonu maa ngi dégg Pape Diop ancien maire de Dakar muy wax ne dañoo war a jël dañoo war a jël terrain aéroport bi séddale ko lébu yi nga xam ne ñoo dëkk Wakaam Ngor ak Yoof pour eh, pourquoi ñu leen koy jox pourquoi ñu leen koy jox quoi ñu leen koy jox bu leen ko joxee seen ndey ji réew jeeg seen jaraaf yi ñoom dañ koy dañ koy paaj paajoo jaay ko ah parce que suuf rek moo fi def nit milliardaire te terrain yooyu ñu ngi koy jaay fu mu toll nii à des prix exorbitants ñu ngi koy jaay moment bii nii côté bi féete Almadi ñu ngi koy daggate di ko jaayee cent cinquante mètres carrés daanaka boo ko bëggee soo mootul cent cinquante millions ngay joxe ñu ngi koy jaay moment bi may wax ak yow ndax xam naa ko am koppar ku ci dem ñu wan ko terrain yi bëgg koo jaay muy laajte kan moo moom terrain yi waa ji ne ko bul bul bul këyit yu wóor laa lay jox mais du ma ne la diw ak diw diw diw ñoo ko moom gouvernement bi daal moom moom moom moom moom terrain yi ñoom ñoo ñu koy jaayloo ñun ñooy promoteur yi xam nga ne terrain aéroport bi bu ñu ko dogot dogotee jaay ko <laughs> mais loolu ay milliards de milliards la ay milliards de milliards la te du mujj lu dul ci loxo politiciens yi nag fa lay mujjee ndax lu gouvernement bi moom politiciens yi ñoo ko moom ku ñu bëgg jënd dagg ku ñu bëgg a jënd nga def transhumance ñu daggal la fa teere nga xam ne teere boobu mooy mooy rek jëndee nañu la cent cinquante millions te li ma lay wax nii boo ko bëggoon xam da ngay dem Occident fa la ngay xamee ne nit ñi loolu mooy asset da ngay koy laajte lii asset asset du ay cash booy yore ay bien la ay bien mo da dekk yi bo bo boo tukkee bitim rew ba am sa keur fay ko danaka ba mu jeex rek yow yaangi tok ci koppar bu dëgër parce que sa yu la neexee meun nga ko jaay te wulo bank bokku la xaalis bi ngay def ci bank bi diko fa duggal bi ya ko mom te aduna du gudd di gat ba ñu ne la daanu na wala liina valeur bi meun nañ mën naa daanu mais yow ci li nga tok kenn duko sacc kenn garder ndax ya ci dekk loolu nag waroon naa tax président bi def benn politique boo xamante ne te maanaam suuf si dañuy fexe ba xam sénégale yi ñaata lañu ñu fexe ba fexe ba sénégalais yi yombalal leen naka la ñuy amee kër ndeysaan loolu mooy richess yombalal sénégalais yi ñu am kër mais ay ministre yu yore ay koo ci waxal ñu ne la nga nga koy laajte bëgg a wax ba koo invité wala wax ak moom ñu ne la ma nga ma nga ca ca toolam ba moo ay ay Signa ay put ni ay sebe gars gaay fu nek lañu am ay terrain amna ño xamne au cœur de Dakar lañu ñu yore ay ay ay ay hectares encercler ko ak ay briques defuñu fa dara luddul dul bu tok te mënuñu lo wax fan lañu ko jëlé luddul ci ay négociation politique ñi dañ leen koy denk di xaar mom lañu wara war campagne en 2024 ñii na la dencal mako fofu rek dina ko soxla xëy na deux mille vingt neuf lañ koy yóbbu a ah. moo tax mbir mi doy na waar suñu déggee président mi mu génn di ci wax ah ku nekk président rek yaa yore suuf réew mi ah te boolewuñ ci suuf si nga xamante ne les occidentaux ñoo ko occupé ñii pour entraînement militaire dégg nga ñii pour bay ay façon fruit wala ay ay céréales yoo xam ne bu ñu paree teg ko ci wala ay légumes bu ñu paree teg ko ci ci train bi yóbbu ko ci poor bi yóbbu ko yóbbu ko seen seen dëkk yi bitim réew te ñooñu bokkul ak ñii di bay sunu ñii ñii di ñii di ñii di napp sunu sunu jën yi yooyu moom ay contrat yu dul jeex la moo tax lébu yi amatuñu jën Sénégal lekkatuñu jën moo tax léegi dañoo gën a ràgg gën a ñuul parce que jën bi moo ñu doon xeesal moo ñu doon naay sal ñuy am ay teint yu huilé jën rek lañ daan lekk ceebu jën waaye léegi ceebu ceebu légume la ñuy lekk léegi waaw ceebu légume kenn lekkatul jën te xam nañu jën ni mu amee njariñ ci nit noonu def géej gi nag noonu la def su la ñu def suuf si waaye bu ñu ñuy wax ak réew mi dañu ñuy nax quoi comme si ñoom ñoo sauver réew mi te suuf si jeex na maire yi fu mu toll nii maire yi ñuy waaj a fal ñi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy ñiitaatu nag ñoo koy ñiitaatu li ñu jafel kay mooy ñi jëndoon kër ñëpp te am na xaw ma naka lañ koy waxee mooy buñ la buñ la joxee terrain bi te da koy jënd de ñu ne la mairie bi moo ko octroyé amuloo amuloo bail da ngay déposé bail doo ci mos a jot gouvernement bi noonu la def bloqué nit ñi nga xam ne saa yu ko neexee mun na jaay te mun na jaay espace boobu ñu yëkkati leen dañ leen di yëkkati pourquoi parce que yéen amu leen baay bail bi dañ koo difficile loolu la Macky Sall difficile xam nga affaire yi ay jeu nak dama leen koy tojal ngeen xam ko li tax ngeen di jek jek gis ay nit ño xamne dañu jëndoon ay kër jënd nak la la wax de ñu ne la attribution la ok mais attribution mën nga ko jaay nga dem def tabax sa kër ba paré nga ne ñew ne léegi da ngay da ngay wut bay nga déposer bay ñu bloqué ko amna ya des centaines de milliers de sénégalais yu yoré ay bay yu yoré ay ay ay ay terrain yu ñu leen attribuer ñu demander bay duñ leen ko mësa jox pourquoi parce que c'est en attente les politiciens ñoo koy doxee noonu bu fi gouvernement bi jugee benen gouvernement ñew né way terrain bobu dañ ko waay yeen yéen tam lu ngeen doon xolé ba koy jaayé ngeen nan ay 2 millions ngeen ko jaayé hein bu ko défé valeur bi yéeg ñu ñoo xey suba jaay ko ñom ñom Jean la fenêtre ñu jugee France bëgg fa investir déng ci ci ci ci localité bobu ñu yëkkati leen yoni wa Descos ak bulldozer yeeg militaire yi ñu ñëw daaneel kër yi jox ko ñooñu lii mooy lii mooy li xew bu ko defee ñu jël xaalis boobu di ko politiquer ngeen di yuuxu léegi nag sénégalais bu ñu yuuxu kenn du leen dimbali ah nga jékki-jékki gis gaa yi nekk ci boppu koñ bi naan dañuy baare autoroute beeg moo tax politiciens yi bu ngeen jugul ci ñoom il faut en finir avec eux avant qu'ils n'en finissent avec vous da leen di càmbar mais ku ci and ak ben politicien boko waxe dara ñu ñu bëgg la ci ray quoi ku ci contre gouvernement bi bo bo len dé wax dara ñu ñu ñu ñu ñu ñu bëgg la ci ñu bëgg la ci ray manam ñaari côté yépp sénégalais yi ñooy xeexante ñooy seen biir quoi ñi contre gouvernement bi ak ñi am benen espoir amul ben challenge ben challenge amuko ben challenge amuko moo man fu mu toll am na ñoo xam ne dañu maa mere nee nañ dootu ñu ñëwati sama émission parce que ñoom ci opposition bi ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal ñoom dañoo bëgg rek ñuy def comme ma nee naa leen loolu nekkatuma ci nekkatuma ci bi ñu Macky Sall defee li mu ñu def te doon lambar lambari ci rajo bi comme ñëpp bi ñu man léegi li ma teg mooy challenge du ma waxal kenn lu baax loo xamante ne ni nekkul ci yow du ma ko def di dimbali ci nit ci ay fenkat pourquoi parce que damaa contre gouvernement jàppale ay ay ay minable ñoo xam ne amuñu liggéey ñuy réunir chaque jour ñuy def ñuy lijjanti naka la ñuy naka la ñuy amee dépense bu ñu siiwee la seen famille di doog am lu ñu lekk ndax xaalisu militant yi la ñuy dajale man dama nekk ci yooyu affaire bi dafa war a laaj ngor am challenge am dëgg bu ko defee ñu jàppale la mais maay jeune homme man loolu dama ciy jàppale kenn wala ma xew waaye mooy lan ñi xewoon ñëpp xewi nanu waaye réew mi rek moo xewagul réew mi rek moo xewagul ah ñoom moom saa ñu xëyee rek dañ leen di fàtte mais nag boo amee plus de cinquante cinq pour cent d'analphabète noonu rek lay mën a doxee humeur yi ni muy demee rek mooy par rapport ak ki leen neex ñu bokk région wala ñu bokk ethnie wala ñu bokk sëriñ foofu rek la nekk

ah benn terrain day jël dix million ñu jaay ko Amadou Diop dix millions jaay ko keneen dix millions jaay soxna sale dix million ku ci nekk di lambar lambari ñu bàyyi leen nag ñuy mujj tribunaux cas yu demee noonu yor nañ ci jusqu'à deux mille sept cent yoo xam ne deux mille cinq deux mille quinze ba léegi nii moom la ñu traité xam nga loolu dafa bëri te sans compter yi nga xam ne mu ngi nekk en cours moo gën a gaaw am xaalis kaas nu mu gën a gaawee te ñu ci gën a yab nag mooy immigré yi ñu ñu ci gën a yab mooy émigré parce que xam nañ ne amuñu jot di ñëw di jaabante tribunal am na sama benn xarit boo xamante ne maris lañu ko jaay kër mu ñëw bay tabax benn waay jóge fële ne ko doo fi tabaxee lii sama terrain la moom it mu génne ay këyitam ah ñu mujj waajale ay mbër la dem luye ay mbër chaque jour ñuy ñëw di taxaw ci sit bi ne kenn du fi tabaxee ay sénégalais naroon reyante seen biir moo ta gis nga loolu ni muy xewee noonu lay xewee ci politique bi ñoom ñooy mere wante di wante ay xeer yéen ngeen di xeex ci biir di rayante alors que ñoom ñaar réeroowuñu réeroowuñu ku ci ko ci xas tamit bu suba bu subaa bu ñu dajantee dañuy fóonante gauche ak droite eh, waay politik la waay saa waay politique la waaw léegi yéen neen fekk yéen yéen a ngi rayante ba dee waaw sama copain bi nag comme que dafa am ñu mu xam benn général la xam daal général munoon naa la wax sax tur bi moom la xam ne ko man daal damaa jënd kër te maa ngi fii ci Amérique waaye waa ji daal sonal nañu quoi nee na du ñu tabax saa yu ñëwee sama maçon yi nag nee na ñoom dootuñu ñëwati tabax tant que amuñu jàmm waaw. xam nga nu mu mujjee waa ji moo yónnee gendarma yi ñu ñëw fekk fa kii ne ñuux ki ci gën a jaay gëree ci mbër yi ñu ne ko nuux yóbbu tabaski fa la ko paase. gis nga bi ñu leen bàyyee kenn ñëwatul waa ji tabax na këram ba dëkk te loolu tamit boo ko desee mooy braloo <laughs> moo tax faaw nga affilié wu faaw nga affilié wu am foo féeti nekkal fi ñenn pour ñu nekkal la fi rek mbir yi dafa doy waar dafa doy waar xam naa am na ci yeneen yoo xam ne sax bëggoon naa ko ci wax mais damay bañ a monopoliser parole bi lu yàgg euh, waa waa Mali nag def nañu ay délégation parce que Guinée ubbil na leen seen frontière mën nañu accès à la mer mais dañu buggoon aussi utiliser fi nga xam ne mooy Algérie réeroowuñu wuñook Algérie mais bëggoon nañu juboo ak Mauritanie pour que au moins au sud et au nord est et ouest ñu mën a am accès ci ay dëkk yoo xam ne maanaam dina doon ay mouvement bu ubbeeku boo xam ne mën nañ faa yegg parce que Mali dafa am frontière ak Algérie au nord avec la Mauritanie au nord-ouest Nous avons am ouverture ba nga xamantene sonal bi leen bëgg sonal ak ak ak ak e ñom ñu mëna am ay ouverture ñu mëna défé mbir Waye nak mbir mi ki ci gëna gañu du Sénégal dina ci avantage bi ci am ak Côte d'Ivoire avantage bi ñu ci am nekk gana tollu fële di wax di di di di di di def ay complot contre des peuples Union africaine nag jox na leen Union africaine jox na leen ndigal nee na leen nañu arrêté embargo bi ta delloo waa Mali seen xaalis waaw ñoom joxe nañ leen kii def naa ci mois de février bi danañu daje Addis Abeba xam naa question Mali bi dina doon euh, lu ñu fay waxtaane lu ëpp conflit bu rëy la te conflit bi ñun la intéressé waruñoo bàyyi ay occidentaux di ñu dicter ñun ni ñu war a doxalee même bu fekkee ne suñu réew yi démocratie amu fi mën nañ ko rek régler d'une autre manière fexe te loolu loolu li ñu ko war a defee rek mooy fexe ba élection yi mu transparent ñu bañ ci indi mbirum njublang peuple bi fal ki ñu fal parce que ñi ëpp ci gouvernement yi dañuy sàcc ay élection ah dañuy yore retention de carte la ñuy def seeni opposants yi du ñu jot seeni carte wala du jo du ñu def communication bu leer nit ñi récupérer seen carte bu ko defee gars yi du ñu mën a dem voté ji wala bu ñu demee du ñu am carte bu ñuy voté bu ñu demee ñu ne leen nekku leen ci liste bi challenge boobu la Union africaine am moom la CEDEAO wala war a am mais pas toog naan ay coup d'état ku ku sonn coup d'état maa ngi leen koy wax man damay ñaan coup d'état yi gaaw bëri te tasaaroo dëkk yi jege mal yëpp mu am fa ñu seet ndax ñëpp la ñuy kii peuple yëpp a sonn waay waroon naa gën a bëri nag waroon naa gën a bëri xam naa man waxi dof rek laay wax li may wax kenn du ko wax waaye mooy mooy dina am lu mu soppi ndax gana tey bu fa nanaa toogee tey ñuy wax premier pays de démocratie ñaata coup d'état la ñu fa def xanaa moo yore record yi moom ak Nigéria tey mu ngi doog tegu ci yoon ay militaire ñoo teg réew mi ci yoon tey parce que politiciens yi lenn laa leen mën a xamal fu ñuy doorante wala ñu fay tiire ay fital du ñu fa toog ñoom ñëpp ay yambar lañu woote manifestant dugg seeni bunker lañu xam mais du ñu génn face face au lacrymogène du ñu ko def moo tax bu bu tay d'état yi takkarnaase woon rek borom làmmiñ yu rëy yi ngay gis yëpp ñuy wax ay élection locale ay maire laa dootoo leen gisati waaw moo tax ma souhaité ko parce que jaay gëree bi yëpp mooy bu ñu bu ñu toogee am ñu leen wër waaye ñoo door kenn fan lañu tojul Ahmadou Diop ma jox la kàddu gi waaw Ndiawar jox na nga def waay. ñu sant rek Ahmadou ba yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm sa analyse bi de rafet na. d'accord naaj 100 pour cent. waaw parce que jaadu na parce que li nga wax daanaka kii la rek maanaam constat la. Mhm. ay fee la yoo xam ne kenn munu koo wet mhm. dama ci d'accord parce que. li tax sax ma gën cee d'accord parce que da cee indi ay firnde tuuti rek laa ci yokk évidemment sax loolu sax mënoon naa ko bañ a def waaye évidemment ci local yi ah wax nga ci ak euh, foncier bi ma Sall wax maanaam local yi sax daanaka les jeux sont déjà presque faits ay rafetal rek di ko yokk na ñoo ne ci dëgg waaye ñëpp xam nañu li nga xam ne moo làqatu ci ginnaaw parce que soo gisee évidemment naturellement xam nga ko ah, maire yi cool yu bari ku ne naan nekk candidat surtout le bazar yore ay milliards di ko distribuer à tout vent ne ñoom daal dañoo bëgg réew mi ndax génne nañu milliards yu bari <laughs> loolu day mënta am fenn ci àdduna wax dëgg hmm. Afrique dong laa ko gis amul feneen ah waa ëldëb la rek c'est c'est tout hmm. parce que li tax maire yi di ci ñafe wax nga ko sax tout à l'heure dama ci yokk benn gros mot rek et puis du gros mot sax maanaam maire yi maire yi nekk Ndakaaru hmm. surtout ñi nga xam ne ñoo nekk pouvoir parce que problème bi mooy Sénégal dafa am ñaari affaire yu ci nekk soo nekkee maire nga nekk beneen camp hmm. nga nekk maire mooy président de la république loo def dagan hmm. loo def kenn du ko gis waaye boo nekkee maire hmm. ci beneen camp bi camp adverse bi nga sàcc euh, euh, euh, vingt millions à la minute qui suit des na la cueillir parce que maire yi Ndakaaru actuellement nii parce que xam nga man li tax man Senegal bëgg ma jaaxal maire yi lu tax ñuy ngar ngar ci affaire yi ak les affairistes parce que mbir bi sax ëppal la addu kalpe la sax amut leneen amu fi parce que loolu mënta am france france gii nu nekk nii fi may commencé bis ni entreprise ak loo mën a nga yor ay milliards munoo fexe ba ñu def le ministre wala maire mënta am parce que dañu xam ne conflit d'intérêt sénégal nag dañ koy daganal parce que affaire maire ci sénégal laboratoire de la corruption là Mmh. c'est tout source de gagne-pain et d'enrichissement totalement illicite. parce que li tax ma wax ko mooy li tax ñu ŋar-ŋare maire yooyu nga yore maire yooyu yu nga xam ne nee nañ ñi ngi ñafe am na ñoo xam ne eh, bi fi pouvoir bi nekkee lañ ko jox ñett dërëm yoruñu ko ay milliardaire la ñu tey mm. lu leer laa la wax spéculation foncière la ñuy def mm. parce que niñ koy defee mooy dañuy ñëw ne Ndiawar ah Ndiawar ñëw ne man damaa bëgg ah, benn terrain ci Kër Massar. Hmm. lu leer laa la wax. te dama ko wax digg penc parce que xam nga Sénégal dañuy defee ne boo nekkee bitim réew en tant que sénégalais ñëw ñoom ñoo la gën a xam ni Sénégal di doxe hmm. parce que dañoo juum waaw parce que bu doon loolu la. Hmm. occidentaux. lu mu gëna xam ñu nekk ci soi-disant des élites hmm. occidentaux yi ñu gëna xam li nekk Afrique. wallahi ñoo ko xam. wallaahi wax nga dëgg léegi hmm. waaw parce que manam, moy li nga doon wax rek parce que dëkk boo xam ne plus de 65 pour cent ëpp na ko sax d'analphabète enfin c'est pas de la caricature c'est un constat. Hmm. wane wut na amuñu xam-xam. mais affaire bi waaw wonewut na amuñu xam-xam mais affaire bi duñ leen jox ay kaddu da ngay wax nasaraan yu leer waaye waaye boo jo waxul nasaraan yu leer kenn du la indi ci télévision bi déedéet soit ngay tàggaate hmm. booy tàggaate moom nekk griyo traditionnel booy wax wolof leer danaa la yegsil ci jàmm hmm. waaw te li tax maire yi euh, di ci niñ koy defee lenn la dañuy ñëw ne njawar waaw njawar ñëw ne man dama bëgg benn terrain ci kër saar dañ ko naan yegsil ci jàmm mm. maire bi ci boppam day bàyyi ay yite lépp lay bàyyi. <laughs> ñëw man lu leer laa la wax Ndiol. ñëwee. xawma ñaata hectare. nga bëgg. <laughs> ñaata hectare nga bëgg. waaye ji ne la. Eh, nga ne ko man dama koy jënd. maanaam yow yaa indi sa xaalis. wallaay. xaalis xobet la. Hmm? amut maanaam xobet la amut chèque. lay doon. Hmm. waa ji ñëwee. Hmm? xam nga lu mu lay mm. parce que non seulement yow da ngay fay sa xaalis ci cash mais xam nga lu mu lay wax. ah lamb sa poche. dolli ko moom. dolli ko. Eh. ba pare nga ne ko da mun a la c'est-à-dire que moom mi la jaay terrain bi. moom mi la jaay terrain bi dafa bëgg ci terrain bi ko jaay mu am ci wàll ci terrain boobu. waaw wàll waaw waaw mu am ci wàll moom. ba pare. Mm. maanaam. 20 jar 20 millions. Mm. voilà à peu près 20 millions. Mm. yow millions. 10 mm. millions lay wax 10 millions 10 millions mu def ko ci la wax. def dama ko wax ci digg mi te est-ce que gis est-ce que lenn ci Sénégal xam nga problème bi xam nga man question voilà Macky Abdou Diouf Macky Sall.

parce que li tax duñ ko def parce que ndey mbilli gi da cee am njariñ hmm. da cee am jariñam wallahi xam nga ko gën xam hmm. mo ku ko gëna xam li xew ci biir comme Macky Sall bu doy wax ne affaire euh, euh, foncier yoyu mo ne ci ginaaw parce que li tax mu koy def maire bi bu sàccee hmm. def ci posam li tax mu ñuy fexé ba ñu nekk maire dafa bëgg sa yu élection amee soi-disant manam nous massifier son parti politique c'est ça la vérité mmh. li ngay agence euh, agence les meilleures agences wax agence maléfique mom mmh. la ko le lepp mo né ci la laaj lepp ay la ay mécanisme confiscatoire totalement politique yi ñoy say say loolu def té li ci gëna mmh. moy xam nga ñun roy ci France France du pire, du mm. pire français mm. Manam le débat franco-français mm. surtout sur la question des affaires de la cité Il y a pas de quartier Qu'est-ce xam ne rep à ça? Le des de la ci président de la république Emmanuel Macron maanaam ñemewute jël xaalis wala muy jox ndigal naan ministre campagne électorale bi dekkee si nañu dix milliards xalaatu ko sax. mais pourquoi ñun ñuy def loolu ñun dañuy roy France ba pare te ñun lu bon lu bon yi lañu maanaam dañ koy exagérer ci ci nu graw quoi. parce que parce que le problème c'est que xam nga dafa am régime présidentiel. à la sénégalaise ou bien euh, euh, voilà ou voilà à l'africaine. Mm. parce que beaucoup, parce que li tax beaucoup état français. Mm. fuy jël maanaam déjà manam dafa am ñoo xamne à l'avant-garde dañuy jël matukay hmm. manam dafa am ligne Maginot yu bo xamne do ko parce que dafa am contrôle waaw les dafa am ay contrôle hmm. France fi ñu ko gis ni hmm. amul ben douanier wala administration bo en échange de service euh, Madame, manam laaj bu ko presse bi kaso moom na n'en fa dem Waouh! waaw parce que la cour des comptes d'abord, qui ci Élysée mooy contrôler Élysée te mooy contrôler assemblée nationale. te te dama lay xamal ben affaire te li ma lay wax moo am billaahi moo gis nga gis nga gis nga le budget gis nga le budget gis nga le budget de l'Élysée hmm. le budget de l'Élysée ndaw le budget de l'Élysée moo a celui de l'Assemblée nationale au Sénégal c'est l'inverse hmm. parce que président de la République moom a plus de 120 milliards C'est naka la hmm. alors que en France c'est le contraire pourtant ñun France la ñuy royee On kon mbir mi ma ma ne hmm. yi gis nga Sénégal du dem fenn la du dem man léegi suis démissionné ah.

parce que ah. Amadou Ba dafa wax benn tojaande boo xam ne parce que man. Hmm. histoire bu c'est-à-dire Sénégal man damay dem ba ne noonu ay est-ce que ay nit lañu. Hmm, jar naa laaj de. Amadou Ba dafa déclaré hystériquement avant l'heure hmm. comme par hasard. bi nga xamante ne bii ne les griots traditionnels def nañu seen sortie te ñu dingat ko ci rajo bi te ma dingat ko ci sama émission yokk ko ci. wallaay wallaay. Amadou Ba dafa déclaré indignement mu ne. Benno va sortir largement.

waaw l'ex substitut du procureur de la république. Mhm. te te Macky Sall nom ministre de l'intérieur tey. dëgg la parce que li tax man indignité bi. Mhm. man dafa mel que amna yo yoo sénégalais duñ ko gis. man mhm. xomul lu tax. xawma buñ ko doon gis rek. waaw mais li ma ci gëna a jaaxal. le ministre là Antoine Diom, nga xam du statut du substitut du procureur de la république au politicard. loolu kat la. wallaay moom la.

dafa amoon koo xam ne dafa génn àdduna yal na ko yàlla xar àjjana ba naga ni moo fa nekk mais ñun ban dëkk la nekk. lu toll ni politiciens yi bu ñu deewee sax kenn waru leen ñaanal ñu dem àjjana ah. mais li tax si ñuy def ñun dañu war a bàyyi sax di leen ñaanal bu ñu deewee ah. voilà léegi. Ah, bu ñu rey waay politiciens du jullit du ñu ay jullit. ay franc-maçon la ñuy doon ak ay dugg ci cercle yu vicieux lenn rek la ñu gëm mooy alal ak pouvoir. bu ñu deewee sax comme góor jigéen ñi lañ leen war a def ah. comme góor jigéen ñi. Mais bien sûr. On commence à en avoir marre quand même. Voilà. Mais attends, Ndiawar, quand nga li d'accord ci quand nga euh, Jean-Luc Mélenchon Je nga lu tax. lui, hmm. nga je suis d'accord France quand je tu d'accord avec lui, parce que Jean-Luc Mélenchon dafa xam tout tukki Maroc xam na proposer une solution pérenne ci France waaw loolu moom duñ ko def ma ne. Hmm. parce que lu baax. ku ne hmm. mën nga ko copier. soo bëggee yoonu jub. Hmm. parce que ëpp tubaab moo ko créé. wala keneen créé ko. bu dee lu baax da nga war a def ci sa dëkk. ñu seet ba xam ne mais nag li ma bëgg a wax foofu mooy. Jean-Luc Mélenchon dafa taw tem wax loolu parce que dafa wax ne nañu def référendum d'initiative citoyenne ma ne si on l'appliquait au Sénégal c'est-à-dire que maanaam nous interdire systématiquement non seulement les emplois familiaux, cumul des mandats, agences mm. agence politiques bon mm. politique. Mm. maire nga nekk ministre ministre conseiller foo mën a so soo defee ay mel ay malversation nous créons une commission totalement indépendante du pouvoir politique nous juge le buñ la jugé tout mal, la ñu defal la révocation waaw et poursuite judiciaire et sans pression d'aucune sorte fut-il le président de la république loolu duñ ko def xalaatuñ ko sax jéemuñ ko sax mm. parce que li tax moo ko mooy naka lañ mën a nekk ci benn dëkk yow nga journaliste wala nga nekk ministre conseiller bëgg nekk maire mais loolu naka la mën a nekk ñu def la RTS waaw loolu naka la mën mën a nekk mais kooku c'est c'est manifestement conflit d'intérêt mm. évidemment imbil gi moo koy digle mm. kon ana changement bi mm. ana changement bi il faut que ñu expliquer nu changement bi changement bi euh, changement bi fan la nekk laaj naa la ko parce que fas yéene wuñu ko def dañoo nekk jubadi système de vase communicant la ñuy def voilà c'est tout loolu moo tardé le Sénégal solution am na mais bëgguñu ko Mm. parce que bëgguñu nit ñi yeewu waaw parce que li ñu mooy réewum teranga bi ngay wax mm. teranga boo xam ne maanaam da nga koy latoo rek tubaab yi la ñuy lalal basang teranga bi tubaab yi la ñuy lalal basang waaw ba pare réew moo xam ne wanewut li muy déclaré mm. maanaam wanewut ne parce que réew mi li muy déclaré nekku ko mm-hmm. parce que réew mi dafa am clan ñaari clan moo fi nekk le pouvoir politique temporel dañoo am ascendance sur les citoyens présumés amnésiques classés de seconde zone c'est ça wala mm. mm. c'est un système de vase communicant boo ko waxee tout tukki loolu moo fi am kenn du ci fay impôt kenn du ci fay ndox oto yi rafet la ñuy yore loolu naka la ma kooku c'est de l'argent illicite voilà c'est tout parce que boo nee nangam ak i nangam sama maan te sama maam daawut def loolu yow nga koy def parce que wonewut ne parce que yow maanaam yow euh, maanaam jàngoo alxuraan euh, euh, jàngoo dara nga ne docteur nga docteur bu nekkul bu jàngut docteur mënu ko te da koo war a wone te da li wax doc fi ñuy wax docteur dafa mooy domaine yoo xamante ne dañuy def promotion pour que gars yi di fa dem doo leen dugg mu ay docteur la science naturelle wala wala wala wala physique chimie waaw ay docteur yow yu kenn xamul yow ay science de l'environnement ay yu kenn yu kenn demul la ñuy dem dem ci école université yi def promotion bi Sénégal la ngi fees dell ay politiciens yoo xamee seen doctorat yi amul challenge ñuy tànqal nit ñi ci ay ay ay docteur la te bu ñu la waxoon université bi université online la man politiciens yi eh, di ay fenkat su ma duggoon eh, seen domaine rek nga xam ne xam naa leen moo tax ñu bëgg maa def copain saay saay su bon si ngay gis nii wax nga dëgg de parce que dama lay xamal leen gis nga Sénégal diplôme yi ngay gis ni la majorité dans la plupart des cas dañ koy jënd lu leer laa la wax dans la plupart des cas gis nga seen diplôme yi dañ koy jënd dañ koy jënd ci digg penc mi xam nañ fiñ koy jëndee waaw parce que Sénégal il faut que maanaam ñu def pexe yoo xam ne pour mettre fin un terme à l'impunité permanente du bazar c'est tout parce que buñ ko defut ku ñëw aussi def li ngay def voilà c'est tout loolu la maanaam manam nak ci limay terminer moy hmm. xam nga wax nga ci CEDEAO bi. xam nga do ne yoral di xam nga ñu wañi seen ñu jam ko ñu jam waaw parce que nous wañi seen ñu jam parce que li tax ñu wañi seen gàllaaj ñu jam c'est parce que il y a la levée de bouclier manam des panafricains nek debout waaw contre cette mesure inquisitoire madame, ingérence là madame, ça, crime crime contre l'humanité Mali. parce que l'État, l'État c'est tax euh, manam Wani Gala jam ko c'est parce que évidemment c'est parce que le Mali il faut contourner euh, euh, madame, mesure Bobo. parce que dafa ko ci Guinée ko ci Mauritanie ak ci Algérie bi nga waxee voilà bi nga don wax Voilà, comme ça ñu avons passé euh, ces produits loolu la loolu moo tax te Moustapha Niass am na déclaration bu mu ci def def na ci déclaration bu rafet waaw parce que nee na daal bonne parole parce que Sénégal ak Mali benn la mais xam naa li tax ñu def ko c'est parce que xam naa dañ ko jox ndigal parce que parce que teelu ko woon a wax loolu la Burkina Faso ñoo ci wax ak des activistes loolu la voilà loolu moo tax la CEDEAO revenir sur sa décision qui est totalement illégale. Mm. Parce que colonel Assimi euh, Goïta, Homo Goïta, mm. maanaam moo wax parce que euh, président euh, euh, du Ghana boobu voilà Accra lañ ko defoon amba moo tax ñu jéem dindi am embargo boobu mais loolu loolu maanaam xam nga li tax sax qu'est-ce gis-gis. Mm. parce que loolu day ne CEDEAO mu nekk une structure supra supranationale. maanaam voilà à à l'échelle continentale africaine mais ay normalement les experts mm. qui sont censés savoir les conséquences. les l'irrationnel et les irrationnels mais ñoom dañ koy pour des raisons euh, euh, politiques sur sur pression de qui ou de l'extérieur mm. c'est tout. je profite de jërëjëf Ahmadou ma ma ma profité ci dalal euh, sunu ganu mercredi bi muy imam Assane Ben Ndiaga xam nga la euh, semaine passée ñuy wax ci mbirum vaccin yi nga xamantene mo lembe won Afrique euh, ci positif bi nga xamantene ñep de ñu bari dañ ko amone ci mbirum euh, Coupe d'Afrique bi ak Covid bi tay nak Imam Asan, dañ la bëggon jox pur gi pour aussi déglu sa jangat par rapport ak li nga xamantene ne moom yene kay yi gëna a bi bokku na ci lion yi la majeure partie de la presse mëna na sax toute la presse sénégalaise dañ doon bombardé ak ay titres yoo xamante ne moom moom la ñu jëmale ci Sénégal maanaam ci équipe nationale bi maanaam équipe nationale jàpp nañ ñu géewuñu te ñoo ñooy première seen groupe ñu bombardé leen beneen bi avec la rentrée des cours et tribunaux le président Macky Sall exposé na euh, ci mbirum problématique des des des conflits fonciers au Sénégal nee na am na nu mu doon demee proposition yi nga xam ne defoon nañ ko ko depuis 2016 su ci jàppul woon heure bii kon Sénégal benn suuf du fa des te loolu dafay mel ni dafay lié ak euh, daw bi nga xamante ne tey politiciens yu bari ñu ngi koy daw dem seen localité pour mën a doon maire maire moom mooy gérer les terres euh, Assane jàngat global boo xam ne mën nga ko def ci ñetti sujet yoo xam ne benn bokk ceeg sa morom benn bi Lions yi la benn bi problème foncier la benn bi élection locale yi la ak ni nga xamante ne violence yi nga xam ne moom moo ci am tous les jours euh, ban jàngan nga ci am imam wa alhamdulillahi wa wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain euh, sëñ Jawar euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu ñëpp ñoo xamante ni ñi ngi déglu tey taataan ci émission bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla def lépp loo xamante ni moom lañ fi wax wala jëf mu doon njëriñ boo xamante ni dañu jëriñ fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira amiin euh, équipe nationale hmm. c'est vrai euh, instant yi ñu nekk hmm. ak Sénégal fañ ko doon xaaree hmm. manam ci not just pas simplement ci ay résultats wala ñu nekk premier ci pool mais je pense que attente bi sénégalais yépp amoon mooy pour gis leen ñu wane seen xarkama ni ñii ñooy première équipe africaine manam ñu wane beneen visage loolu la gars yi doom xaar si ñoom mm. te it pour wax rek te yàlla rek tax mooy naxam euh, amoon nañ ay gàllankoor yoo xamante ni moo tax ba lan bëggoon teg wala xar kanam bi ñu bëggoon wane mënuñu kon wane nax Covid bi benn la ci yooyu ak it yenn blessé yi nga xamante ni moom moo am ci effectif bi ne hmm. néanmoins hmm. bu fekkee nag dañuy xool rek sur le plan positif hmm. ak sur le plan résultat te première phase bii nga xamante ni la ñu génn. Hmm. mën wax bilan sur le plan résultat wax. waaw c'est satisfait parce que hmm. liñ daan yaakaar ci ñoom gis nañ ko ñu premier ci seen poule. dëgg la Sénégal bi yépp attendre sur le plan objectif maanaam hmm. nañ génn seen poule. maintenant sur le plan tactique. ak sur le plan physique hmm. mën nañ leen may ne leen hmm. wala mën nañ leen nangul ne leen gàllankoor yi nga xamante ni moo ñëw moo tax niñ leen waroon xaaree ak niñ waroon briller briller wuñ ko loolu mën nañ leen ko nangul hmm. donc boo xoolee pour man dëgg dëgg dëgg Sénégal compétition bi mi ngi door a commencé ah. mi ngi door a commencé parce que fu mu nekk nii léegi dootul amati benn excuse. ku ñu gañee rek nga dem ñibbi. waaw ku ñu gañee nga ñibbi. Hmm. bu ñu gañee ñoom waa Sénégal bu ñu gañee. Hmm. dinañ prouver adduna bi yëpp ne a ah Sénégal bii day wane ne ni léegi lañ nga xamante ni moom lañ waxoon ni moo ko gàllankoor moo doon gàllankoor bi. Hmm. mais buñ gañewul. ni buñ buñ gañee. nit ñu bëri am deug ci ñom nañu ah équipe Sénégal bi dal c'était pas une équipe convaincante manam li wone wane lépp depuis le début de la compétition gisoon nañ ni équipe bi du sori mais mais mais Assane est-ce que est-ce que manam déception bi aussi nekul milliards yi nga xamante mom lañu la alloué football bi té euh, euh, té ñi ñu recruter ñi ci ëpp ay professionnel lañu amna am na journaliste yu bind seen xaatim ne milliards yi nga xamné mom lañu injecter ci football bi c'était pour que ñu développer le niveau local mais bu fekkee ne bi maanaam moom bu waree sélectionné ay ñoo xam ne ay professionnels lañu ba pare ñoom lay sélectionné kon pourquoi ñuy allouer ces milliards là est-ce que loolu tamit nekkul ne dafa jouer ci pression bi nga xamante ne moom la nit ñi di xaar ci résultat bi ñu bëgg. xam nga euh, njaw Diop. Hmm. c'est que ni euh, football euh, dafa doon benn sport boo xamante ni tey jii nii waxuma la sax Sénégal mais ci adduna bi yëpp. moom mooy sport bi nga xamante ni moom la ñu gën a seetaan te it moom mooy gën a an koom-koom. Hmm. moom moo ëpp revenu maanaam ci wàllu ñu koy seetaan ak ñi ci intéressé wu. Hmm. fu mu mënti doon ci àdduna bi yaa ngi déglu ma. dëgg la donc ça se justifie que ni gouvernement au Sénégal war leen apporter benn soutien bi te du Sénégal rek boo xoolee dëkk yu nekk ci ci sous région yëpp ni Sénégal di def ci alal ci seen i joueurs. Hmm. ñoom loolu la ñuy def alal ci seen i équipe nationale wala sax lu ko ëpp. donc pour man loolu c'est justifié léegi problème bi mooy wala li nga xamante ni moom laa gis hmm. même boo xoolee sur le plan national hmm. Sénégal hmm. championnat yi ba léegi pour man ndimbal gi ñu waroon am sur le ci ci bu jugee ci gouvernement bi ak calendrier bi ni ñu ko waroon respecté ak stats yi ni ñu ko waroon mooy infrastructure pour man ba léegi

xam nga dem uti seen stade bopp uti seen i fonds à l'extérieur te amuñu benn ndimbal ci état bi. Mhm. mooy yenn école football yi ngay gis comme ay jàmbaar rek. ay yenn école football yu ndaw ñooñu dëgg dëgg dëgg dëgg tey jii nii boo xoolee effectif bi ñu ci bëri ñuy dem ba génn Sénégal ba nekk. Mhm. ay jour yoo xamante ne dañ leen tudd tey. dañu mhm. bàyyi ko Sénégal yu ci bëri ci école de football yooyu la génn. waaw école de football ay école business la loolu tamit business la ah. waaw. waaw mais mhm. yooyu yooyu dañ ko war a encourager pour man. dañ ko mhm. war a encourager ba pare mhm. état bi daf leen war a jàppale. parce que loolu mooy déterminer suba footballu Sénégal. boo xoolee ay Sadio maane ay Idrissa Gana Gueye ay joueurs yu bëri ci école football yooyu la ñu génnee. donc pour man. tojuñu championnat tojuñu championnat du Sénégal ñu leen di doog a xam. déedéet. Ah. donc pour man pour man football boobu dafa am. solo. Mm. te catégorie boobu dafa am solo. donc ñu am appui ba pare encouragé tamit ñi nga xamante ni mooy sénégalais yi nga xamante ne ñu dem ba football ba bàyyi football. encouragé leen ñu dellu si waat ubbi école de football yu mel noonu ñu état bi jàppale leen yombalal leen lépp loo xamante ni moo ci war comme ça ñoom tamit ñoom mën di jàppale sport Sénégal te loolu man je le dis pas ci football bi rek. Mm. mais dans tous les domaines domaine sportif bu nekk. mais malheureusement malheureusement Assane xam nga lu ñu seetlu mooy. waaw euh, ñooñu nga xam ne c'est des anciens sportifs ñoom li ñuy bëgg ñëw mooy remplacer ki fi nekk te jiite es euh, maanaam euh, cette discipline la moo xam football la moo xam beneen. anciens ñoom bu ñu ñëwee du ñu créer ay école de de formation mais ñoom dañuy bëgg ñëw jiite fédération bi wala ñu jiite li nga xam ne moom mooy équipe national bi. est-ce que loolu dool tamit ah. doolul benn paradoxe ci ci sport ah. boo xam ne boo xam ne da ko bëgg a suqali waaw waaw loolu tamit lu am solo lu ñu war a souligner xam nga mënuñu am tey jii nii mm. benn équipe nationale mm. ba pare am ay milliers et des milliers wala ay millions et des millions d'entraîneurs loolu mm. yaa ngi dégg li ñu war a def mooy football bi yaatu na yaatu boo xamante ni wala sport bi yaatu na yaatu boo xamante ni kenn ku nekk mën nga bay sawaar waar. Mm-hmm. fa nga nekk fa nga nekk. Mm-hmm. yaa ngi dégg. dëgg nga nekk di fa liggéey di contribuer di def lépp loo mën pour yéegal footballu Sénégal soit mën nga nekk entraîneur équipe soit mën nga dem jël benn petite catégorie di leen yéegal. Mm-hmm. xam nga la parce que football bi nan la xale yi da nga leen di jël en charge. ba ñuy nekk ndaw xam la mm. base bi foofu la commencé. Mm. donc nekkul ni ñëpp ñoo war a ñëw nekk entraîneur club wala ñëpp ñoo war a ñëw nekk entraîneur élite. Mm. wala ñëpp ñëpp ñoo a nekk entraîneur première division wala deuxième division bëri na ay secteur dans le domaine du sport yoo xamante ni ku nekk fa nga nekk. bul xeeb la ngay def. dëgg la mais bu ñëpp liggéeyee loolu je pense que dina jëmale sport Sénégal kanam. man noonu léegi Assane ñu ñu bouger tuuti ci affaire euh, foncier bi ak euh, li nga xamante ah. ne aussi moom moo di euh, élection locale yi violence bi ci nekk ban jàngat ngay def ci est-ce que bokk nga ci ñi nga xam ne dañuy lier les conflits foncier ak maire yi ak li waral sénégalais ah. yëpp bëgg ñu ëpp ci politiciens yi mënuñoo doon député ñu ne léegi nañu dem léegi ci niveau local fexe ba gérer suñu localité ban jàngat nga ci def waaw waaw euh, ja euh, sëñ Diawar laajte nga mbir bu am solo gis nga mbirum euh, foncier hmm. ci Sénégal hmm. man damay ruus sax damay ruus sax hmm. te ni ba léegi dafa doon problème boo xamante ni mënuñu ko régler man ci sama bopp dama ci am sama expérience bopp man à titre personnel wallaay en 2006 2007 dama jëndoon benn terrain coté Zac Mbao mhm. ma jënd sax euh, ñaari terrain ñu mhm. taqaloo mhm. bi ma ko jëndee ba pare ñu dem dem dem samay waa kër mooy sama sama yaay di ma wax tabaxal sa terrain wala nga clôturer ko wala nga def sa terrain ma ne ko non terrain baa ngi foofu kenn du ko jël bis bu ma paree dinaa ko ñu dem ba mu yàgg en deux mille treize benn waaye dem uti kayit beneen commune. yaa ngi dégg. Mm. ñëw ni ñëw ni moom moom terrain bi. Oh. ñu nekk ci di yéeg ak a wàcc di yéeg ak a wàcc yéeg nga war a ut avocat. wallaay sa temps sa bi yëpp. di consommé ngay dem tribunal ñu renvoyé que renvoyé que renvoyé. wallaay wallaay wallaay wallaay. ngay dem impôt domaine ñu lay wax ay yurul pour man. Mhm. dëkk bu toll ni Sénégal. Mm. maanaam loolu daf ko lu quoi. vraiment vraiment vraiment. te tey jii nii boo demoon tribunal. Mhm. la nga fay fekk ci dossier yoo xamante ni affaire titre foncier. nee nañu deux mille nee nañu deux mille quinze ba léegi deux mille sept cent vingt cinq cas. lañ fi nekk di ko traité depuis deux mille quinze ak léegi. waaw donc Diawar. Mm. man jàngat bi ma ci am pour man politique état bi moo lajj. Hmm. dinaa la wax li tax. ati waxal gis nga gis nga boo demee par exemple ma jox la exemple. Hmm. ah dafa lajj ci ci ci ci ci ci wàll mu mënti doon gis nga da hmm. ngay jékki-jékki rek. nga nekk benn benn benn benn Assane Mbengue nga ñëw ñu jox la ay hectares. neexalee la ko. wallaay wallaay wallaay wallaay. yow nga commencé di dagg di jaay. dagg boo xamante ni dagg boo xamante ni c'est dagg boo xamante ni c'est pas numérisé dagg boo xamante ni jaarul jaa amul fenn foo xamante ni fa lañ ko war a jaarale. respecté wul les normes. waaw ten loolu te loolu dama lay wax lan la nar a jur après. Hmm. dinaa la expliquer léegi nan la nar a jur après. lim nar a jur après mooy da ngay ñëw am am ñu jox la ay hectare nga ñëw commencé ko dagg ay dagg parcelles yu ndaw. Hmm. boo ko daggee parcelles yu ndaw nga ñëw jox Njawar Diop benn terrain jox beneen waay benn terrain yaa ngi dégg lu la Jawar Diop ñëw tabaxee nu ko neexe beneen waay ñëw tabaxee nu ko neexee hmm. amul tali. wallaay amul amul amul canalisation amul benn benn benn procédure liggéey bu set. bu jaar yoon amul sécurité pour pour pour pour sapeur pompier. voilà léegi lu nar a xew mooy bu taw bi ñëwee. Hmm. foofu taa. wallaay waa koñ bi génn ne état bi moo deful liggéeyam fekk état bi dëgg la ñoo laaj ca ca ca njëlbeen xam nga. Hmm. gis nga am na gis nga gis am na yenn terrain gis nga fii dama lay expliquer Amérique. nu muy doxee barki dem moo njaay dafa am benn trente cinq acres boo xamante ni ñun dañ ko jëndoon il de cela deux trois ans mhm. mais gis nga garaaj ñoo jox permis pour permis mhm. permis pour ñu ñun dëkk fa waaw da war a dem nga jokkoo ak ñi nga xamante ni ñuy mët lépp ñoo ñoo res évacuation ñoo res affaire ndox ñoo res mhm. affaire sanitation ñoo res ñoo ñooy dew xool ne la dama bëgg nga won ma sa plan fan la tali bi di nekk fan la tuyau di nekk fan la ndox mi di déversé wu fan la courant yi di duggee fan la ANPE bi nekk fan la fan la exit bi nekk maanaam loolu yëpp il faut ñoom ñu xool ko ba approuvé ko ba pare hmm. ingénieur yi ñëw xool ko ba approuvé ba pare door la mën a jox permis ba pare di surveiller yow liggéey bi ngay def li ngay tabax ndax di ko defal yoon wala déet mais Sénégal Sénégal looy gis mooy dañ koy jox benn waay xam ñu nag waa ji ñu ko jox am na capacité financière yi mm-hmm. pour tabax ay tali mm-hmm. tali yoo xamante ni tali jaayoon mm-hmm. xamuñu ndax waa ji am na capacité financière pour def assainissement xamuñu ndax waa ji am na capacité pour andi courant xamuñu dara ci moom lépp li ñu xam ci moom mooy ay terrain ngi nii jëlal nga nga daggate nga jaaya <laughs> nga dogoto dogoto nga ko <laughs> waaw pour man loolu moom mooy problème bi nga xamante ni mooy luubal bi gën a ngand ci Sénégal ñaareel bi lu tax léegi loolu dinaa ko connecté tuuti dinaa ko connecté tuuti ak affaire élection yi nga ni moo xew mooy élection municipale yi hmm. hmm. xoolee à part budget bu ndaw hmm. à part bu ndaw bi nga xamante ni moom la yenn mairie am ak responsabilité yi mag yi ñu am bo xolé deug deug deug li ñu di votal si budget matul dara. wallahi du dara c'est des miettes. ya té ñom hmm. fan fan fan fan nga yaakar ni fa la wara mëna jëlé alal. Hmm. pour ambition yu ñu am ci seen gox. Hmm. ñu mën ko mën ko ñu mën ko. jigéen suturaak yaakaar a taxoon man ma. ko yenn endroit yi nga xamanteni ba légui souf dess na fa. yoy lañuy jël di dag di ci def ay deal pour man am tuuti alal. wallaay pour defar pour defar defar seen bopp defar seen i mbokk. defar pour financer seen i campagne. waa hmm. donc pour man état bi dafa war a xoolaat dëkk bi dëkk bu nekk commune bu nekk. Hmm. ak li soxla. Hmm. au moins ñu voté ko budget boo xamante ni budget bi dina mën a régler. problème bi dina mën régler problème yëpp. dëgg la mais au moins yenn problème yu jàmp yi dina ko mën résoudre. dëgg la dëgg la pour man foofu mooy enjeu bi quoi. dëgg la imaam imaam trois minutes moo ñu moo ñu dese. aywa euh, euh, ma ma bëggoon la laaj rek une dernière question. mbirum mbirum mbirum violence yi nga xam ne nag am na ci ak ni presse bi di couvrir euh, maanaam les ténors les anciens directeurs généraux ñoom rek la ñuy mettre à la une yow Dakar dangay dem ba defe ne ñaari candidat moo fa nekk boo demee Saint-Louis da ngay defe ne ñaari candidat moo fa nekk moo toujours day nekk candidat Benno Bokk Yaar la ñuy def à la une ak ki nga xam ne moo gën a yëngatu ci opposition bi te alors que day am ay sept candidats mais yaakaar nañu ne Bart ak Diouf Sarr rek ñoo nekk Dakar il y a Pape Diop il y a euh, ban jàngat ngay def loo ci rôle boobu nga xam ne presse bi mu ngi koy joué te dafa mel ni dafa féete. waaw loolu tamit euh, lu ñu war a lu ñu war a gis nga gis nga pour man élection yi si boppam dañ ko faussé depuis le départ. Hmm. gis nga élection locale yi. Euh, sëñ Ndiawar. Hmm. maanaam élection gox la. yaa ngi dégg maanaam communité bi ci boppam ñoom ñoo waroon xool kenn ci seeni koñ. Hmm. wala seen communauté seen quartier koo xamante ni doyloo nañ ko. wallaay xam ni kii fii la juddoo fii la màggee. Hmm. te mbiru koñ bi sox. yitteel moo ko soxal. yitteel ko wallaay yitteel na ko. Hmm. bis bu bis bu fee bis fii lay yeewoo fii lay gonto. fii. bis bu fi defee njaaxum dañuy dox rek dugg ci biir këram génne ko ne ko hey yaa fi def lii. wallaay wallaay wallaay wallaay. yaa ngi dégg lu ma wallaay wallaay mais problème bi mooy. Ah. problème yëpp dañ ko détourné ci li am solo li am solo. Ah. mooy moo tax ni ñu ko wax moo tax média bi nga xamante ni dafa bàyyi te boo amulee doole pour ñu topp sa ginnaaw. oui yow nga nekk benn candidat boo xamante ni yaa ngi dëkk benn koñ HLM. oui wala benn koñ Gueule Tapée wala fu mu mënti nekk. Mm. yaa may mm. te xëy na amoo kattan pour euh, drainer. Euh, média bi. waaw donc dañ lay suul. wallaay wallaay wallaay ñi am doole ñi am kattan ñoom ñoom. ñi nga xamante ne am nañ ay am nañ ay kat kat. yaa ngi dégg <laughs> am nañ ay cortège yu leen di topp ñooñu ñoo foofu la kii bi nag mais li am solo dëgg dëgg dëgg dëgg mooy vraiment ni mu waroon demee mooy waa ji nga xamante ni mooy yeewoo ci koñ bi dëkk ci koñ bi. waaw am am am aussi c'est très important am capacité intellectuelle maanaam the right man for the right job right job rek ñu jël rek def ko il faut mu xam-xam bi mhm. bi ñoo ko kat yow jërëjëf imam maa ngi lay gërëm di la sant kooku moo nekkoon imam asan Ben Ndiaga Mbengue euh, te li muy wax ni yëpp domaine am la nag ma ma fàttaliwaat ko euh, di sama xarit Euh, jàng nekk un technicien du sport parce que INSEPS la la la la jàngee euh, nekk aussi un un un sapeur pompier fii ci Houston nekk un infirmier nekk borom business tamit macha allah euh, di jiite ay centre yoo xam ne nii fa la ñuy vacciner nit ñi donc li ma li may waxtaan ak moom yëpp bokk na ci xam-xam bu mu am quoi man maa koy talonné nag xam naa ne am taamam amul mais du ma ne déet. waaw du mën a déet incha allah parce que xam naa ne mën na ko moo tax maa koy talone day bañ ba ba ba daanu waaye ñeme wala bañ nag sa sëriñ la nag waaye nag su ko defulee rek man damay nettali yi nga xam ne xamoon naa ko dama ko santaas nag dama ko santaas <laughs> dama koy la <laughs> ku baax la ndeysaan nitu diine ku baax yàlla na ko yàlla fay ci eh, générosité bi mu am di partager xam-xamam ñu joxaat ko rendez-vous rek incha allah beneen mercredi may gërëm bu baax Ahmadou Diop ci Euh, euh, euh, réponse bu mu def ak ni mu ubbee suñu bët par rapport ak sujet yi ñu sulu souligné tey donc ñu gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon déglu ci seen émission l'info autrement di leen jox rendez suba ci beneen émission di gërëm ñëpp incha allah di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaan seen njaboot yal na yàlla sàmm Sénégal yal na yàlla gën a dimbali Sénégal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

commande fenn fudul